tabax teg préparer sa ay doom ak yoy lolu rombul da fi nek parce que chaque fois dinañ ni seen papa moo fi liggéey lii chaque fois dinañ ni seen papa lii la fi def c'est papa euh, c'est très important kuy jeune war nga mën préparer wu sa bop ci lolu tu es appelé à être un père nekk broker, kër am ay euh, responsabilité yooyu yor donc bul bañ am fo jaar par force dangay am fo jaar mais critique bi may def ñi am ñi ñi may mën a wooyee ñi nga xam ñoom ñoo am yàlla dimbali ñu yor il faut que ñuy mën a parfois di toog ci ay plateau yu mel ni wax ak la jeunesse wax leen ni nekk naa fi lii nekk naa fi parce que nit parfois dafa complexe day nekk dara rus koo wax ni aw naa fii tey ñun dañoo am benn fort boo xam ni boo yoree tey doo bëgg sax ñi nga xamoon barki démb ak démb di leen romb mais c'est très important nga nekk dara aw fenn. toog fier ci sa bopp xam ni boo amul woon fii doo nekk lii nga nekk nii tey